C'est toujours un plaisir d'être avec vous chers amis téléspectateurs ci seen émission bi di Ganu Equivox tey nag ñuy am mbégte ak kontante dalal fii keneen ko xamante ni doomu réew mi la waaye itamit di yëngatu ci wàllu politique di responsable politique bu APR en même temps yi tamit moo di président bu mouvement tous debout kooku moo di Cheikh Ahmed Tidiane daf tey nag ñu koy dalal ngir waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi ci wàllu politique ci wàllu social ci wàllu Covid 19 bi sax ak dogal yi nga xamante ni si njiitum réew mi jël na ko. loolee nag mu war a nekk suñu waxtaan tey ñu bàyyi ko dalal ko yi tamit ci kër gi di Equivox TV mu nuyu mbokk téléspectateur laata ñuy tàmbali waxtaan bi sëñ bi daaf ñu ngi lay nuyu. Euh, merci beaucoup maa ngi leen di remercier euh, ci dalal bi ngeen ma fi dalal tey. Euh, di njort ne daañu waxtaan waxtaan bu am njëriñ. pour les populations. te mu nekk aussi lu leen di yokk. te yokk suñu réew. d'accord li ñu bëggoon euh, tàmbalee waxtaan bi bokk na ci euh, benn fait boo xamante ni fi mu ne nii mujj na sax jël beneen dimension boo xamante ni weesu na Sénégalais yi muy coowal ak Sweet Beauté tey bu Ousmane Sonko génnee wax ba tegg ay tuuma ëllëg ñu gis kii di Adji Sarr moom it wax tegg ay tuuma tuumaal njiital Pastef waaye dafa mujj nekk benn fee boo xamante ni sénégale yi daanaka taay nañ ci sonn nañ ci ndax bis bu nekk rek ay wax di jóge fii jëmale fa ca des intervention sur intervention ci ay kilifa diine ci wàllu politique yi tamit waaye terewul ba tey fee boobu muy gën di gagné beneen dimension tey naka nga jàngatee enjeu surtout du point de vue politique bu affaire Sweet Beauté bi. alors euh, Sweet Beauté da di mbir bi nga xamante ne ni ko président de la république waxee que c'est véritable justement loolu lii la doon renvoyé tey li nga li nga li nga li nga li nga li nga li nga dut baaraam léegi-léegi aujourd'hui on a l'esprit des Sénégalais ñu concentré ko ci mbir bi nga xamante ne ay la yéwén amalu leen njëriñ du li nga xamante ne day yokk seen dund walla di leen di leen kii lu ci am solo rek mooy ne euh, ñaari sénégalais mm-hmm. ñoo jote comme ay sénégalais ni koy jotee chaque nuit du ñuy jotee ci réew mi chaque jour ñu ñu war ko yóbbu ci yoon àtte ko pour xam dëkk bu mu féetee et comme je di encore dëgg boobu amal na leen njëriñ ñoom ñaar ah euh, peut-être dans une certaine mesure euh, l'honorable député Ousmane Sonko qui est qui est un, un homme public un homme politique peut-être moom il peut plus ou moins intéresser les Sénégalais mais soxna si ci boppam moom moom euh, issue procès bi lu lu ko ci lu ko ci dal rek moom la intéressé mm-hmm. waaw intéressé wul Sénégalais yi et malheureusement dans un contexte bi mu nekk mm-hmm. nga xam ne réew mi dafa waroon gën a concentré ci leneen mm-hmm. ñoo ngi on est damay bañ a wax ne one est par d' autres choses mais mënoon nañu am mun mënoon na am lu ko gën daal waaw c' est c' est ça c' est regrettable encore une fois de plus comme président ni mu ko waxee est ce que du posture Ousmane Sonko bi nga tudd léegi du ndax moo gën a jëmmal yëf ba mu am enjeu bi ndax Adji Sarr ay at ci ginnaaw kenn xamu ko woon kenn xamul woon turam euh, fii yëf yi toll sax moo tax ñu bëri commencé di intéressé wu ci ndaw si fan la dëkk lan la nekk di defee tout ça. Euh, évidemment euh, l'honorable Ousmane Sonko député Ousmane Sonko arrivé troisième à la présidentielle suñ ko suñ ko indexé ci ay problème de mœurs naturellement dina dina intéressé ñu bëri. Mm-hmm. Ah, ñu ànd ak moom ñu àndul ak moom. Sénégalais dans leur dans leur généralité dina leen intéressé defe naa ne loolu moo jox tey problème bi dayo bi mu am. Mhm. sinon je pense que su nekkoon benn Sénégalais. lambda euh, il arrive tous les jours en tout cas fréquemment que des Sénégalais ñu ñu qui soient attirés à la barre pour des questions de mœurs. Mm -hmm. et su weesoo quelques euh, de faits divers des différents journaux. Mhm. doo ko doo ko dégg fenn à part ñu mu intéressé directement. Mhm. donc je pense que loolu tamit loolu loolu mooy évidemment le facteur mhm. euh, qui explique un peu la propension que le problème a pris. Mhm. ci wàllu wi ngeen bokk yéen ci mouvance euh, bi ngeen féetee di APR ngeen euh, sës loolu ci nguur gi. ndax yéen i tamit amu leen benn taxawaay bu ngeen si am ba tax yéef yéef yi agsi fi mu agsi ndax gis nañu ay responsable politique yu APR organiser seen ay médiatique génn wax ci yëf yi alors que président jotoon nañ ci ay xabaar ni jotoon na ñaan waa APR wala benn bokk yaakaar yëpp ñu bañ a yëy yàbbi ci yëf yi seen taxawaay boobu ndax yéen nekk na lu yenu maanaa yéen itam. bon yenu maanaa c'est ñu ko def ñoo koy ñoo apprécier mais je veux dire euh, ci ci ci contexte politique euh, il faut aussi reconnaître que attaques yi jógewul ci ñun. mais tontu ngeen. fa ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu tuuma nga tontu. donc loolu la rek à un moment donné tudd nañu tout comp tudd ñu ci. Mhm. Euh, à plusieurs reprises ba benn instant nag dafa dafa jotoon ñu leeral sénégalais yi c'est pas c'est pas lié à la personne de. de de l'honorable député Ousmane Sonko mais c'est plutôt par rapport ak sénégalais yi ñuy déglu xam nga weddi tuuma tamit lu lu lu su suñu suñu droit la mënuñu tere nit mu tuumal ñu mais suñu tuumalee am nañ droit quand ne lii nii ñu ñuy tudd bokkuñu ci. Mm-hmm. je pense que c'est ce qu'on a fait et je ne que loolu ça ça a participé. ah ah enflammer la chose gëwuma loolu man gëm naa ne daal. umal nañu tontu nañu. te nous étions strictement dans le champ politique. ndax tontu bi ëppul tamit façon bi ngeen ko defee organiser ay plateau ci ay télévision yu mag ku ne di génn ay responsable politique di wax ça aussi tam il faut le reconnaître. mais tontu bi. Euh, <coughs> we du tontu sax weddi tuuma bi dafa tolloog dayoo tuuma bi rek. parce que mais tuddoon nañ leen ci yëf yi moom dem na ba teg loxoom sax si ay euh, fee yoo xamante ni nee na ñu nekk si ginnaaw moo di ay responsable politique yu APR yoo xam ne ñoo complété yëf yi. fee yu mel nan li mu tudd ba ci dossier Sidi Ahmed mbay wax ni ki euh, jarbaatu wala euh, parent la en tout cas ci ci Maodo malik mbay loolu tamit nekk na yéen lu ngeen jël ba ba yëf yi mujjee am benn xët-xët. alors il faut comprendre une chose. Mmh. ci élection présidentielle. Mmh. nous avions. 6 millions d'électeurs au Sénégal. Mm -hmm. La moitié, c'est-à-dire les 3 millions, ont voté pour Benno bokk qui en tout cas un, un Sénégalais sur Donc pour faire en termes de probabilité, def lien d'une personne à une bokk yaakaar Bokoyakar dafa yomb ça c'est des raccourcis faciles dafa mel ni tey maa yooyu toog nañu plateau suba dara xew rek. ñu ne ah diwkat diwkat moo ko def parce que mook Tijaan mos nañ toog plateau ak affaire yooyu loolu c'est des raccourcis faciles tey pour pour rattacher quelqu'un à Benno Bokk Yaakaar par ce mécanisme là da lu yomb donc loolu man gëwuma ne lu am lu am lu am taxaw la parce que chaque jour nit dina fi def jéyee li nga xamante ne euh, loolu da koy rattaché ci Benno Bokk Yaakaar beneen affaire bi mooy ne nit ku nekk yaay sa responsable bopp surtout en droit pénal donc lu nit kii di def à titre personnel est-ce que loolu dafa engagé benn Bokk Yaakaar encore que je ne dis pas que Sidi Ahmed Mbaye def na dara wala defu ko mais je veux dire même ci biir euh, ci biir salon bi peut-être am na ñu nga xam ne benn Bokk Yaakaar lañu àndal ci ñi nga xamante ne tey dañoo ànd dañoo dañoo dañoo instruire dossier bi à charge ou à décharge ñu nga xamante ne euh, ñi ñi ay mbokk ay mbokku Adji sar ci boppam peut-être ñoom Pastef la ñu àndal mbokk juge yi ñuy wax ni peut-être Pastef la ñu àndal parce que loolu beneen affaire la par rapport ak fee en tant que tel en tout état de cause luñ ci munti loo ci munti dégg daal mooy ne ñun euh, ci suñu bopp defuñ ci dara politiquement maanaam et euh, dañu dañu tudd ñu ñu ñu leeral ne ñun bokk ci loolu kase la du leneen d'accord naka nga jàngatee sortie médiatique bu Adji Sarr ci évolution fee ak li mu jot a tudd discours bu schizophrénique à la limite ndaxte daanaka ci benn jotaay bi léegi-léeg mu wax li xaw a wax la ca des noo jàngatee loolu. non awma ci awma ci benn njàngat bu particulier man sama jàngat daal lii la mooy ne nous sommes dans un état de droit un état de droit dafay taxawee ñaari tànk benn bi ci njëkk mooy ne l'état de droit tout le monde est égaux devant la loi mooy ne ku ñu tooñ quelque que soit sa dayo suñ la tooñee am am nga droit ñu ñu delloo la ci sa droit justice mm-hmm. waaw st en justice quel que soit mm-hmm. mais quel que soit aussi noo ñàkk ñoo néewee doole ak ñoo ñàkkee tekki ci réew mi suñ ko mënee waxee noonu mm-hmm. l'état a l'obligation de te protéger donc pour moi aujourd'hui euh, que ce soit Adji Sarr ak Ousmane Sonko yooyu ñoom ñaar ni ils sont devant la loi et la loi waaw sorties yi nag loolu mhm. seeni mbiru bopp la encore une fois de plus d'accord waaw euh, léegi boo boo xoolee ci enjeu yi Ousmane Sonko gis nañ ni nekkul premier adversaire politique bu président Macky Sall boo xamante ni ñi njortu nañ ni njiitum réew mi da ko bëgg a faagaagal laata élection yi di ñëw gis nañ ko bu xalifa Sall gis nañ ko fii ci Karim Wade euh, ndax du kon tey ñun ñi mënuñoo am droit njort ni président Macky Sall dafa bugg a faagaagal ay ay adversaire politique yoo xamante ni ñoom ñoo gën a jëm am jëmm tey ci opposition bi. alors euh, njort moom nit ku nekk moo ko moomal boppam am na ñu njort loolu am na ñu njort leneen donc njort moom ku nekk ko moomal boppam mais ce qui constant li nga xamante ne lii lu ñu mën a dut baaraam la mooy ne soo jëlee le le cas de Khalifa Euh, lu tax ma ci wax ça veut dire que le procès est déjà épuisé ah. Euh, il a été clairement établi que établir na 117 fausses factures 117 fausses factures pour le GIE Tabara bi nga xam ne nee nañu benn alxam moo ko moom te kooku bu ñu évaluer patrimoine am yëpp matul 50 mille euh, matul 50 mille francs te cent 117 fausses factures yooyu soo ko xaymee mën na 1 milliard 800. donc loolu et c'est des publique publics mooy mooy deniers publique soo ko déggee mooy sa dërëm sama dërëm dërëm kii di jaay ka café geek leneen loolu c'est c'est ça la réalité euh, atte nañ ko yoon daan président gracié na ko tey moo ngi dox ay soxlaam donc loolu je pense que boobu boobu c'est fait lu lu lu le cas de Karim Wade aussi il a été am na devant la CREI il y a eu des évidences xam nga. nekk candidat quand même. Euh, bon loolu c' est la loi c' est pas le président Macky Sall. mais est ce que du Macky Sall moo cherché loolu. tam non non non la loi. parce Khalifa Sall bëri na ñu fi yore deniers publics ah yoo xamante ni tey tamit quoi qu'on puisse dire mënoon nañ leen auditer xool fan lañ toll. mooy comme kan. mais bari na ci. ñu yore tey ji ay charge yi nga xamante ni vraiment moomeel askan bi la dañ leen war a auditer. mais ñoo ngi leen di auditer OFNAC la table wax ni ki am na ay kees yoo xamante ni ay gestion ñu dénk ñu féetu ko ci nguur gi bés ñu ñu protéger leen. bon man à mon avis moi euh, gisuguma gisuguma laa wax ma amul dama ni man gisuguma un rapport de l'OFNAC qui épingle quelqu'un mais bari na am na. dégg ni nga ko waxee. Mhm. laa koy dégg dégg naa am na ku ñu ci tuddoon sax. ay journaliste bindoon ci livre bindoon ci livre mais bu mu leen yóbbee procès pour diffamation dañ leen daan mais loolu xam nga tey bay euh, hmm. allez-y hmm. euh, dañ leen daan ñoom parmi les arguments yu ñu doon avancé nee ñu ci rapport OFNAC lañ jëlee li ñu doon wax donc man man encore une fois de plus je me limite aux faits su fekkee nag tamit jox leen ko crédibilité benn ko war a jox ça pose problème finalement. maanaam. maanaam tey nguur gi moo waroon OFNAC bu ko indilee dara mu doxal ko dans la transparence ba nga xamante ni OFNAC ci wàllu boppam dina mën a liggéey liggéey. mais l'OFNAC lorsque l'OFNAC produit des rapports sont transmis au procureur de la République qui est le maître des poursuites qui apprécie l'opportunité des pour ou non. procureur militant. qu'est-ce fait de lui un ah, en tout cas tey li ñu gis de vraiment tëddeewul njaaxanaay. maanaam. ci dossier yoo xamante ni ñii ci nguur gi la ñu féetewoo ñoom lay gën a jox loxo que ñi nga xam ne ñoo féete ci ku jege. Euh, dama bëgg xam ban dossier par exemple lañ jox. procureur de la dossier dossier tey dossier tey bu Bougazelli waaw lañ ci wax cest à tey gis nañu honnêtement seen seen président ak ñi nga xamante ni ñoo féetewoo wàll yoon jox bopp président ci ay dossiers yu leen jox ñu waroon cee gën a mën a sévère mais dañ koy yombal ba nga xamante ni tey lu neex waaye def. non mais Bougazeli son dossier a été instruit. mais pour benn flagrant délit bu toll noonu mu tëdd lu toll noonu. waaw mais tëdd tëdd non tëdd lu noonu je veux dire Bougazeli aujourd'hui mm -hmm. il est en en en liberté provisoire. donc ça ne veut pas que la peine la peine a sauté sa aussi il faut qu'on soit qu'on soit d'accord euh, pourquoi pourquoi indexer le cas de Bougazeli pourquoi ne pas indexer le cas de Khalifa. Khalifa Sall. pou un milliard huit cent. mais Khalifa Sall moom it. Khalifa Sall politiquement il a été liquidé. non en quoi il est il a été liquidé. parce que mënatul nekk candidat. ci échéance deux mille vingt quatre yi. deux mille vingt quatre yàllaa ko yor xam nga deux mille vingt quatre yàllaa ko yor. est ce que du deux waaw yàllaa ko yor mais ce président est ce que looloo ko tiital moom itam. parce n' est pas n' importe qui comment quoi qu' on puisse dire Khalifa Sall il n' est pas n' importe qui. là où l'APR a eu trois millions de voix. Mm-hmm. Ousmane Sonko a eu 600 000 voix. est-ce que loolu mën ngeen ko amaat en 2024. je ne sais pas mais pour l'instant. en tout cas mais mais li ñu jot a gisagum moom vraiment président Macky Sall sénégalais yi ils sont ils sont ils sont prêts à tourner la page de Macky Sall. c'est une constatation empirique attendons de voir. Mm. 2024 on verra on est encore là non. d'accord yàlla nañu yàlla may ñu dund ba boobu après ñu xool. d' accord léegi Cheikh Tidiane li ma la bëggoon laaj bokk na ci euh, wàllum euh, xëyum ndaw ñi bokk na ci li nga xam ni moo nekkoon euh, li ñuy wax la goutte d'eau qui fait déborder la vase maanaam ñoom dañoo dem ba dañu maar ci ñàkk am liggéey ñàkk am formation bu baax ba président de la république def na sorti wax ni moom comprendre na ndaw yi ni xëy na seen seen seen frustration ci ñàkk am accès à l'emploi moo leen gën a poussé à ce que ñu dem ci marché yi manifestation yi di daj ay li ay këru liggéeyukaayu jàmbur président génn ci loolu waxti dina jël 350 milliards pour accompagner xëyum ndaw ñi ci 3 ans yoo xamante ni 100 milliards yi lañ koy séddale ci ñetti at yooyu at bu nekk maanaam 100 mili 100 milliards est-ce que vraiment tey loolu war na mën a nekk solution face à cette euh, euh boo xamante ni vraiment nekk na lu chronique ci ci ci Sénégal. Euh, dama koy natt ci man euh, bu ñu bu ñu lever couvre-feu bi en tout cas bu ko rendalee ba minuit. Mhm. man dama dama nooyuwaat bu baax parce que 18 fi mu ma fekkoon damay jaxasoo. Mhm. entre dem jëli xale yi yeeg yooyu donc finalement yu bëri. Mhm. da nga koy ajandi. Mhm. waxuma la nag ci ñi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy dañuy taaba taaba donc. loolu c'était déjà un problème beneen affaire bi mooy aussi euh, liggéey amatul kii dëkk bi doxatul yooyu yëpp conditions yi soo leen conjugué day nekk lu metti mais yàlla may nañu. on a eu un vaccin donc levé nañu affaire yi démb état d'urgence bi. vaccin bi bëri na cooree grand. bon on va on va en arriver. <laughs> donc euh, daañu wax. <laughs> waaw état état état d'urgence bi yëkkati nañ ko. Mm. Euh, ñu sant yàlla donc le président a pris des mesures dans le sens des jeunes. Mm. ñu ñu yaakaar ne ne dina dina dina nekk lu nga xamante ne dina dina amal njëriñ jeunes yi mais dina amal njëriñ population sénégalaise parce que. aujourd'hui quand on injecte trois cent cinquante milliards dans l'économie hmm. nañu njort ne peut-être daañu ci jur dinañ ci am ay mille milliards de de de de donc c'est ça et je pense que le président Macky Sall aussi moom intérêt am tey mooy jeunes sénégalais yi nekk dans de bonnes conditions parce que le président n'a aucun intérêt à ce que les jeunes vivent la paupérisation euh, comme nu mu ko waxee il les a entendus il les a compris yàlla nañu yàlla may dans les mois à venir nit ñi mu yu mujj ñu gis ci seen bopp. Mhm. vaccin bi nag loo ci loo ci loo ci mën a wax. bon vaccin bi nii teel na bari coow laata muy ñëw bi mu ñëwee ba fi mu toll nii coow li bari na trop. est-ce que tamit président jotul benn moment communication mu koy def de sorte que dina mën a rassurer les Sénégalais. alors xam nga lu lu xaw a dommage dans le pays dernièrement loolu moom c'est mon avis personnel. mooy lu bëri lu gars yi di waxtaanee dañu dañ dañ koy jël hors contexte ex nihilo xam nga ñun Sénégal lañu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màggee donc mbirum vaccin mbirum euh, kii ça été toujours l'objet de de discussion de kii mbirum piqûre ak yooyu même temps booy dañ ciy foo xam nga euh, c'est des chose culturellement qui existent mais les gens savent que c'est parce que lii vaccin yi moo ñu ci moo ñu ci mën a génne xam nañ ko. il y a quelques années il y avait la c'est parce que les gens se sont vaccinés que amatul fii amoon na ay tuberculose c'est parce que les gens se vaccinent BCG bi ñun ñëpp on a été vaccinés ci BCG beeg yooyu. Hmm. donc les gens savent qu'ils doivent se faire vacciner. maintenant tu as des alarmistes et, des activistes. Ah comme comme comme ça existe maintenant qui s'alarment et qui qui sont des comme je les appelle des toutologues ils ils connaissent lu nekk war nañ cee mën a wax ou des ingénieurs des travaux finis. mais ils sont dans leur rôle quand même war nañu alerter ci loo xamante ni jàpp nañ ni mën na indil gàllankoor askan wi. mbir daal soo ciy wax da nga koy xam. da nga jàpp ni ñuy wax si vaccin bi xamuñu si dara. ah gëwuma ne bu dégguma ñi nga xamante ne dañoo dañoo am xam-xam seen xam-xam màcc ci mbirum vaccin ak affaire yooyu. ñooñu ku mel ni professeur Seydi dégguma ko mu ne nit ñi bu ñu vacciné woo ñu may dégg ñu naan bu ñu nu ñu vacciné woo soo leen joxoon seringue yow doo nangu ñu kii la. mais ce n'est pas que professeur Seydi wax ci rek keneen ku ko wax xamuloo ci tamit. non j'ai pas vu euh, euh, quelqu'un du corps médical au Sénégal ou partout ailleurs se prononcer dessus je sais que y avait kii le vaccin Astra AstraZeneca bi nga xamante ne ça a été ça a été un peu suspendu pour des problèmes d'embolie. Mm. mais finalement l'OMS a donné un avis favorable et que tous les pays et jàpp naa ne ñun suñuy déglu ñu nga xamante ne tey ci monde bi ñëpp ñoom la ñuy déglu ci mbir moom ñooñu lañuy war a déglu mm-hmm. mais pas ki nga xam ne da nga taal sa Facebook nekk si kii di di def ay waxu conspirationniste mm-hmm. comme li may wax man nit mënul nekk France États-Unis wala Amérique di ma wax lu xew ci réew mi ah mais léegi nag monde bi évolué na ba nga xamante ni benn fee mun na def le tour du monde ba ñëpp jot si tamit. mais fi nga nekk kenn mënu kenn mënula ko nettali. ah pourtant ñoom day fi yàgg nañu ci réew bi bu dee ñu nekkoon ci réew mi dem tukki sax mun naa comprendre. ñu ñu nekk ni xam nañ réalité bi nekk Sénégal ba tey tamit. waaw man man nekk naa ci réew mi tukki naa dem naa mais bi ma ñëwaatee j'ai vu que y a certaines réalités qui m'avaient dépassé. mais avec internet bi et te bu ma nekkee fee am na yu ma njortoon ne amu fi wala am na fi mais bu ma ñëwee je me suis rendu compte affaire yi demeewul noonu parce que foo foo nekkul mënoo faa nettali. ah mais en tout cas monde bi de vraiment évolué na ba ñuy wax village planétaire ba nga xam ni daal information moom instant yi c'est totalement démocratisé ko waaw l'information est démocratisée mais ñëpp xam nañu aussi l'information primaire ak secondaire day dévaluer d'accord beneen beneen laaj bi moo la bëggoon laaj moo di euh, euh, wàllu ba tey ci ci euh, ci ci wàllum jeunesse bi gis nañu coow bari trop ci wàllu financement DER bi la délégation à l'entrepreneuriat rapide tey DER nekk kuréel boo xamante ni tamit gis nañ ko mu nekk ci yenn initiative bu président de la République pour mun a accompagner ndaw ñi Euh, boobu ba tey moom it ñu ngi def ay financement di def seen ay politique pour mun a accompagner ndaw yi mais est que jotul ñu ñu ñu ñu ñu ñu auditer tamit DER. d'autant plus que cinquante milliards yi coow yi vraiment bari na est la solution. ah mais parce que au moins sax ñu mun di. évaluer xam nga lu tax ma wax la loolu. Hmm. DER doog juddu. DER màggagul yenn màgg yi DER je pense qu'ils ont eu au moins tout au plus trois ans d'exercice. mais trois ans d'exercice après waruñu loo mën a defal benn évaluation. non évaluation évaluation continue bi day am mais je veux dire comme ni ñu koy waxee auditer su ma ko comprendre ñu taxaw càmbar mbir mi yëpp. mais jaadu na instant bi mais la DER est une euh, organisme de l'État la am na commissaire aux comptes am na conseil d'administration am na am nañu une direction de planification et de suivi évaluation donc yooyu évaluation yaa ngi am ça c'est ça c'est ça c'est une chose maintenant. ñu DER financé aussi existé nañu est-ce que euh, on a on a touché on a on a financé les bons projet est-ce qu'on a financé les bonnes personnes. mais c'est ça aussi est-ce qu'on le comment comme nu mu tëdd ça la bonne tranche xam nga. Mm-hmm. question yooyu peut-être aujourd'hui situation bii nii ñuy dund dina tax ñu posé wu ko. mais c'est pas une raison de moo tax ma ne la sànq la question est la solution c'est kii kii la DER est-ce que problème bi c'est juste la DER ou c'est un c'est c'est un problème beaucoup plus profond d'approche de financement de la jeunesse au Sénégal. Mm, mais Cheikh Tidiane foofu parce que tam lu tax ñu war a mun a xam lan mooy vraiment la DER parce que tey. projet yi nga xamante ne ñu ngi koy financé war nañ mun a xam ndax yóbbu nañ ko si destination destination bi mu waroon dem oui no non parce que tamit financement yi ñi ciy ëppale bu ñu ko xoolee ba ci biir mooy des clientèles politiques. xam nga DER dama ciy sawar a wax ci côté boobu. oui parce que déjà miin nañ la tout ce qui est jeunesse et tout ça. non dama ciy sawar a wax parce que su may déglu suñu booyu parti. ku interroger soo duggoon Google léegi di nga ko gis les militants de l'APR qui attaquent Pape Sarr de la DER pour dire que moom DER bi géré wuñu ci je je je je rappelle à votre mémoire l'histoire qu'il avec avec avec Khalifa kii comment il s'appelle le rappeur là. Mm-hmm. Euh, te mu nekk Y'en a marre. kàlla keneen ki Kilifa. Kilifa Kilifa waay. Ah. Mm-hmm. Euh, ah. DER financé na ko fii 15 millions. Mm-hmm. pour pour kii après gars yi di casse. Mhm. donc euh, si la DER qui peut le plus peut le moins DER su mënee financer waa Y'en war a mën a financer waa APR. te nit ñi suñuy wax dañuy wax comme si ci mi. ci lañ bokk. moo tax loolu waru choquant loolu mooy premier élément bi mais waa APR tamit waruñu jàpp ne mbir mi seen mbir la ñoom dong nga ci war a am ce que lu may bëgg souligner foofu mooy lan. Mhm. mooy il faut que ñu éviter même fonds bi président di def maa ngi commencé di gars yi di wax ne di bind ci yenn journaux yi naan que le financement doit être fait sans tenir compte des partis politiques ak yooyu oui certes mais mbaam tuuti na trop waaye ci jur gi la bokk là je pour la jeunesse du de de, la l'APR ñun ci réew mi lañ bokk war na war nañ ñoo mën a sédd. Mhm. xam nga ne ne. kenn gënu leen ci yaay daal. non dañ dañu cee war a sédd au même titre ko tout le monde. du question kenn moo ñu gën a yee mais dañu ci war a sédd et ce qu'il faut éviter mooy xañ say doom parce que loolu sa se en Afrique pour servir ñeneen loolu tu crées aussi de la frustration dans la maison loolu j'attire juste l'attention je ne dis pas que loolooy am. président waxoon na fii la patrie avant le parti. non je ne dis pas le parti ce que du ko du ngeen ko gën je ne la patrie. Hmm. mais je le parti dans la patrie. bu ñu xañ sous prétexte. que ci APR la ñu bokk. ok au même titre de de qu'on mette des de de des mesures objectif képp ki nga xam ne yelloo nga ko nga di nga di doomu Sénégal ñu war la cee jot gis nga ñii ñii di militer biir APR di jàppale président Macky Sall fii lañ dëkk seen baay yi fii lañ dëkk seen yaay fii lañ dëkk ay sénégalais ni ñu ñëpp lañu gis nga je disais nami un ami euh, euh, qui un peu. Mm-hmm. en tant qu'intellectuel d'être avec Macky Sall et qui parlait de la de la démocratie ma ne ko démocratie mooy d'abord ku nekk fi la neex ngay nekk ñun nous n'avons pas honte d'être avec le président Macky je pense que tey defuñ fi ci réew mi lu tax ñu war ñoo xañ dara waaw loolu loolu c'est message bu may jàllale rek mm-hmm. waaw au à l'endroit de ce qui à chaque fois quand tu es un jeune politique ñu lay attaquer wala affaire yooyu les jeunes politiques sont aussi dignes aussi responsables que les autres ils ont choisi l'engagement ils ont choisi d'accompagner quelqu'un qui aujourd'hui est au pouvoir et donc il faut que nit ñi aussi nangul leen ko ñeneen nu ñu demee Pastef ak feneen mais lépp lu ñuy séddale ci réew mi ñeneen ñi lu ñu ci war a mën a am ñoom ñu war a mën a am taxawaay boobu am ko ci d'accord euh, may fàttali ni aussi yow yaay président mouvement tous debout euh, mouvement bi fa la tollu actuellement lan mooy seen activité ci yan perspective ngeen nekk bon euh, dernièrement depuis l'année dernière ñun vraiment nu some concentrés sur la Covid. ok lan ngeen di def euh, ci Covid bi. bon on, on fait des sensibilisations ñoo ngi dajale ak suñuy xameel ak yooyu ay matériel pour accompagner les population euh, bon bëgg nañu engagé aussi ci campagne de vaccination bi mais il faut que ñu xaar ba mu gën a tar ñu xam ne qui son les premiers qui son en responsabilité. ba am fu ñu yeggali mbir mi comme ça ñu ñëw soobu ci aussi pour fexe sénégalais yëpp ñu vacciné wu parce que loolu moo ñu mën a génne ci pandémie bi ñu nekk. Mhm. yaa ngi aussi itam ci euh, cellule bi nga xamante ni ñu couverture maladie universelle këru liggéeyukaay nga xam ni euh, wér-gu-yaram wi dina ko bàyyi xel bu baax a baax ak ci wàllum jàppalante et tout ça CMU euh, tey lan la war a gën a mën a am taxawaayam ci wàllu Covid bi ci jamono bi nga xamante ni ñu bëri. Euh, état d'urgence bi sonal na sonal na leen euh, surtout ménager et tout ça lan ngeen ci am ci wàllu politique ak initiative. bon euh, xam nga la CMU. Hmm. day gérer aspect financement de la santé. Hmm. donc je pense que ci vole boobu def nañ ci lu bëri. Hmm, daanaka on a remboursé à auto de quinze milliards cette année. les hôpitaux pour leur permettre de fair face aux difficultés. parce que am na jamono yële passé yaa ngi doon dégg ci hôpitaux yi ñu naan ay. amatuñu recette. parce que nit ñi ñëwatuñ fa. donc soo déggee coow boobu xaw na wàññeeku tuuti c'est parce que même on a injecté de l'argent dans le système soo demee ci <clears throat> l'autre volet le volet assurantiel mooy euh, l'assurance maladie foofu tamit ñu ngi fay def ay jéego di di on a remboursé j'ai j'ai plus le chiffre en tête mais un montant assez important au niveau des mutuelles pour leur permettre de fair face a à, à la crise c'est ça le, le rôle de la CMU donc euh, et je pense que ñoo ngi ci ñoo ngi taxaw ñoo ngi taxaw ci côté boobu. d' accord mbokk yi bu fekkee yéen ñuy doog a fekk si si waxtaan wi ñu ngi doon dalal kii di Cheikh Ahmed Tidiane Daff di responsable politique bu APR nekk tamit président mouvement tous debout ñu ngi doon waxtaanee tolluwaayum réew mi fii réew mi toll ci wàllu politique ci wàllu santé ci wàllu euh, social maanaam lépp loo xamante ni fan yi daal ñu ngi koy dund waxtaan nañ seeg moom. Euh, mu joxe ci xalaatam joxe ci gis-gisam ñu bàyyi ko xëy na mu wax kàddoom gu mujj balaa ñuy yëkkati jotaay bi euh, xanaa di leen di leen remercier euh, bu baax ci dalal bi ngeen ñu baax bi ngeen ñu dalal aussi di profiter pour féliciter di ko màggal di ko sargal l'un des dignes fils de ce pays le professeur Mokhtar Mbow qui fête aujourd'hui ses cent ans mm-hmm. Euh, di di ñaax population bi aussi ñu bàyyi xel que euh, état d'urgence bi jeex na mais la pandémie et toujours la il est malheureux qu'on franchi la bale des mille morts xam nga coow Sweet Beauté bi bëri na. Mhm. gars yi nee nañu dix ça nous a finalement détourné de l'essentiel quoi. ñii nee nañu dix nii nee nañu sept morts mais la euh, la Covid nous a fait mille morts si si mes souvenirs sont bons ce matin on était à mille quatre ou mille trois morts mhm. donc loolu. loolu maara deytaan yi donc population bi pour ñu bàyyi ci xel day am chaque jour on voit des dignes fils de ce pays ku mel ni Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm euh, qui est parti dans dans des conditions comme ça il y beaucoup de grandes personalité de ce pays que la Covid a emporté malheureusement ñun bàyyiwuñ ci xel et que ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañu nañu xam ne bàyyi nañ ay mag kër ga donc il faut qu'on protège suñu mag yi protéger suñu bopp mais aussi ñaax leen pour ñu dem vacciner jiwu merci beaucoup loolu moo nekkoon kàddu gi et puis euh, di appeler tout le monde à la retenue di ñaan jàmm yàlla na jàmm am ci réew mi. d'accord ñu ci profité si itam di ñaanal a gudd fan a ger gu yaram euh, Amadou Mokhtar Mbow bi nga xamante ni tey mooy euh, mu ngi fêté cent ans mi yàlla ci at yu bari gën a toppaat ñu ni tamit yàlla may ñun ñu dund at yu toll noonu bu ko defee ñuy jaajëfal suñu équipe technique bi que ça soit la régie que ça soit suñu caméraman yi ak tamit Cheikh Ahmed Tidiane Daf yi nga xam ni teew na tey suñu plateau di jaajëfal Khalilou seen bi nga xam ni jàpp na si coordination bi et tout ça ñu leen jox rendez-vous fii ak euh, fan yu néew incha allah ci beneen numéro bu seen émission ganu yi